wa akrimna bi nuuril fahmi waftax calayna bi maxrifati lcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika wansur calayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin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 di nuyu imaam yi di nuyu sëriñ daara yi di nuyu soxna yi jaajëfal bu baax Oustaz Alioune Mbaye mi fi fanaan ak imaam Mamar Seck masawu leen ci coonam fanaan bi ñaan borom bi subxanahu wa mu fay leen suñu waxtaani almisbaax ci fajari samedi yi ñi ngi ciy waxtaane lu jëm ci wàllu julli dooroon ko ca ay bis gee génn. ndax wàccuwaay bi nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa taala jox waaye bala ma doon ñëw ci loolu damaa tàmbaloon di waxtaane julli ci boppam baat bi déggin wi nga xam ne moom la ko borom xam-xam yi jox su ma ca noppee danaa ñëw ci aaye alxuraan yi nga xam ne dañuy wax ci julli su ma ca noppee ñëw ci xadis yi nga xam ne dañuy wax ci julli bu ma ca noppee ñëw ci boroom xam-xam yi liñ wax ci julli jombut buñ ca noppee door a ñëw nag ci njàngale mi nga xam ne moo war a am ci biir julli gi ci farata yaak sunna yaak nañ koy defeek ya nga xam ne moo ca aju yépp yal nañu yàlla may kàttan guñ ko benn benn le ak yéen julli dafa mel ne dafa am ay wàccuwaay yu bari waxoon naa la ne baat bi day tekki ñaan day tekki ñaan ndax borom bi nee na dinaa julli man ak samay malaayika ci yonent bi door wax ne yéen nit ñi julli leen ci moom waaye martaba yi nga xam ne moom la am wàccuwaay yi nga xam ne moom la am te muy lu aju ci wàllu ñaan borom bi subhanahu wa taala déggal gi léeg-léeg buñ ko waxee mooy jaamu yàlla gi nga xam ne daa am ay rukkoo am ay sujjóot ñu lay tere wax di la tere jëf di la tere lépp loo xamante ne bokkut ci biir julli gi moo tax imaam ibnu xayim rahimahullah di wax ne wan naasu fi salaati ala maratiba xamsin mu mel ne daan nit ñi daal ci ak julli daa mel ne danañ ci am juróomi wàccuwaay ba ca njëkk mu ne mooy martabatu zaalimi li nafsihi al mufarriti muy wàccuwaayu ki nga xam ne dafa tooñ boppam ki nga xam ne dafa sàggan wa huwa allati intaxada min wuduihi wa mawaqiyatiha wa ududiha wa arkaaniha mooy ki nga xam ne moom ci julli farluwut ca njàpp ma farluwut ca waxtu wa farluwut ca yeñ ca tere jéemut a xam ponk ya martabam mi mooy ki nga xam ne man yu xaafidu ala mawaqiitiha wa xududiha wa arkaaniha alzahirati wa wuduciha lakin qad dayaca mujaacadata nafsihi fi lwaswasati fa dahaba maca alwasaawisi wal afkaar ku ñaareel ki mooy ki nga xam ne góorgóorlu na ba ci biir julleem mu sàmmonteeg waxtu wi ak mboolem yim war a sàmmonte bi teel ci biir julli gi waaye taxul nag mu jéem a xeex ak bakkanam daa bàyyi rek boppam ak seytaane jax-jaxal ya xalaat yam koy indil nga xam ne julleem gi amu ci benn concentration wala benn genn dal goo xam ne am na ko ci digganteem ak boroomam ku ñetteel ki mu ne mooy ki nga xam ne man yuxaafidu ala xuduudiha wa arkaaniha wa jahada nafsahu fi dafci alwasaawisi wal afkaar fa huwa masquulun bi mujahadati aduwihi li alaa yasriqa salaatahu fa huwa fi salaatin wa jihaad ku ñetteel ki mooy ki nga xam ne moom sàmmonte na ak yi war ci biir julli gi yépp jéem naa xeexak bakkanam ci puusanteeg jax-jaxal yi nga seytaane di indil ak ay xalaat yu bokkut ci julli gi yittewoo rek jihaat ak boroomam ba ci biiru julleem du ci sàcc sàcc ci biiru julli mooy ni ci biir julli ba noppi di def lu bokkut ci julli gi ku ñeenteel ki mooy ki nga xam ne ida xaama ila salaati akmala uquqaha wa arkaanaha wa xuduudaha mooy ki nga xam ne bi mu taxawalee di julli góorgóorlu na ba matal ak yi ne ci julli gi ponki julli yi wastaxraxa xalbahu muraacaatu cuduudiha wa xuquuqiha li alaa yudayiu cheyan minha ku juróomeel ki mooy ki nga xam ne bi mu taxawee di julli moom itam góorgóorlu na ba ab xolam mu teg ko ci kanam boroomam subhaanahu wa taala xad axada xalbahu wa wadaahu bayna yaday rabbihi azza wa jalla mu teewlu boroomam fugloonteeg moom feesal ko ci bëgg boroom bi ak màggal ko nga xam ne bi mu kàbbaree di julli day mel ne mi ngi janoo ak boroomam day mel ne mi ngi koy gis sori li nga xam ne mooy jax-jaxal yi sori li nga xam ne mooy Eh, déng-déng yi nga xam ne mooy dox digganteem ak boroomam waaye mooy dox digganteem ak julli day mujj du amati kiiraay gu dox digganteem ak boroomam fa haada baynahu wa bayna xayrihi fi salaati afdalu wa aadam mimma bayna alsamaai wal ardi wa haada fi salaatihi masquulun bi rabbihi aza ayni bihi nga xam ne li muy yëg ci biir ak julleem bànneex lay doon cofeel lay doon ci déeyaale gi muy déeyaaleeg boroomam subhanahu wa taala ba nga xam ne du soxlaati daray àdduna mu mel ne juróomeel boobu mooy julli gi nga xam ne e, julli gu am solo la moo tax boroom xam-xam bii di ibnul xayim bim ko indee mu ne fal qismul awal muaqabun xaaj bu njëkk bi te mooy tolluwaay bu njëkk bi kooku moom ku sàggan la ku ñuy mbugal la ku ñaareel ki mu ne mu xaasabun ku ñetteel ki mu ne mu kaffarun anhu ku ñeenteel ki mu ne mu saabun ku juróomeel ki mu ne mu xarrabun min rabbihi ndeke nit ki dana julli ñàkk matale àq ya nga xam ne moom jàpp ak bañu jàppale yemale góorgóorlu ci xam ci dara julli gi ay duma la koy jural ku ñaareel ki day njaxas mën naa góorgóorlu ne day julli waaye lu ne mën na ko cee jaxase julli gi yàqalu ko benn programme kooku ku ñuy régler ëllëg la xool euh, lim concentré wu ci julli gi ak lam génn julli ga ne ca leneen ku ñetteel ki ku ñuy jéggal la ndax def na kemtlaayal kattanam ci jéem a boo xante ak seytaane waaye mucc moo ko jafe ku ñeenteel ki ku ñu fay la kuy am tiyaaba la te mooy ki nga xam ne matale na ponki julli gi digganteem ak boroomam jéem naa nuural ab xolam ci biir julli gi jéem naa sori lépp loo xam ne da koy déng-déngiloo ku juróomeel ki nag te mooy ki ma wax léegi mooy ki nga xam ne moom jege na boroomam subhaanahu wa taala kooku moom julli leer la ci moom loolu mooy mbirum jullikat yi ak yenn ci maraati bi nga xam ne moo ci nekk dañ koy laytayaale li jëm ci wàllu julli bu waxee julli léeg-léeg ñu ne asalaatu ala rasulillah te mooy salaatu ala nabi da nga koy dégg wa salaatullahi ala rasulihi rahmatuhu lahu wa xusnu sanaihi alayhi buñ ne yàlla day julli ci yonent bi yàlla day julli ci yonent bi loolu yërmande loolu tagg wu rafet la ci moom moo tax mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nnabiyi yaa ayuha amanu sallu alayhi wa taslima yàlla nee na man ak samay malaayika wala man ak malaayika yi dañuy julli ci yonent bi yéen ñu gëm julli leen te sëlmal ci moom fa salaatu min al du'aun bu dee jaam bi mooy julli ci E, e, mooy julli julli gi ñaan lay tekki ci moom bu dee malaayika yi sàkkul njëggal lay tekki bu dee borom bi yërmande lay tekki moo tax ñu jël baat bi yépp tudde ko baatu assalaatu lima fiha min adduaai wal istixfaar ndax li nga xam ne moo ci nekk ci ay ñaan nekk ci jégglu borom bi subhaanahu wa moo tax boo demee ca taaye ja booy wax attaxiyaatu lillahi wasalawaatu wala wasalawaatu abubakrin radiallahu anhu da doon wax naan salawaatu mahnaaha attaraxumu mooy yàlla yàlla nag ñu yërëm waaw ah, yërëmtalu rek lay tekki foofu ca taaye ja inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii mu ne yataraxamuuna lay tekki yataraxamuuna mhm. yërmandee borom bi subhanahu wa kon julli day taxaw taxawaayu ñaan nam ñëwee ci xadis ba yonent bi ne ku ñu woo ci ak lekk na wuyu su fekkee dafa woor euh, su fekkee wóorut su fekkee dafa woor na ñaanal ko ko woo ca lekk ga waaye foofa daa waxoon wa in saiman fal yu salli na ko ñaanal mu ne na julli fal yu salli li muy tekki foofu mooy fal yadu li arbaabi taami bil baraka wal xayri na ñaanal ka koy woo ca lekk ga aw yiw na ko ñaanal barke loolu mooy julli man salla alayya salaatan sallat alayhi al malaikatu ashra yonent bi nee na ku julli ci man genn julli malaayika yi julli ci moom fukki yoon suñ borom dana ko fay yoolu ku julli ci moom fukki yoon moo tax salaatu ala nabi lu am solo la danañ ko mas indi ci suñu waxtaan yi li ci nekk ci ay ngëneel li ci nekk ci ay njariñ ak ni nga xam ne noonu lañ ci war a bàyyee xel ci moom salaatu ala nabi te mooy julli ci yonent bi allahuma salli ala muhammadin moo tax euh, boroom xam-xam bi di wax ne baat boobu nga xam ne mooy allahuma salli ala muhammadin maanaa mim am mooy azamuhu fi dunya bi ihlaahi zikrihi borom bi moo màggal yonent yàlla muhammad yëkkati aw turam wa idhaari dacwatihi feeñal ab wooteem wa ibqaaci shariatihi maanaam saxal fi itam sharia bi nga xam ne moom la yonent bi indi saxal ko fi bu dee ëllëg yowmal xiyaam bi tashfiihi fi ummatihi mu def yonent bi muy ramu xeetam wi waaye di ful pay gi nga xam ne moom la koy fay wa masubatihi sallallahu alayhi wa sallam moo tax julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam yooyu yëpp da cee laxasu ndax teraanga yooyu yàlla ko defal moo tax mu ne maa ko defal mooy man yàlla maa ngi julli ci moom mooy maa ko màggal ci àdduna yëkkatiw turam maa ko màggal ci àdduna feeñal ab wooteem maa ko màggal ci àdduna def sariya am mu des ba àdduna di tukki maa koy màggal ëllëg yowmal xiyaam def ko muy ràmm aw xeetam fulal ko ab yoolam sallallahu alayhi wa moo tax lamma amarana allahu subhanahu bisalaati alayhi bi ñu suñ borom digalee ne nañ julli ci yonent bi wala ma nablux xadral waajibi min dalika axalnaahu ala allah te mënuñoo matale dëgg dëgg ni ñu war a jullee ci moom borom bi subhaanahu wa taala yombalal ñu ko allahuma salli anta ala muhammadin li annaka aalamu bi ma yaliixu bi waaw yàlla maa ngi lay ñaan nga julli ci yonent bi ndax yow xam nga loolu ni mu yelle ak ni nga xam ne noonu nga ko mën a defee ba mu yell ci moom waaye yow it del julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu ak ñaan la goo xam ne boroom xam yi indi nañ ci ay wuute ci ndax dagane na noonu wala déet ala baatu julli li muy tekki mooy baatu ñaan bu dee julli ci yonent bi buñ waxee malaayika yi dañ koy def ak jinne yi ak nit ñi Eh, ibnu arabi day wax ne alsalaatu min allahi rahmatun wa min almaxluqiina te mooy almalaaikati wal insi wal jinni alqiyaamu wa rukuucu wa sujuudu wa ducaau wa tasbiixu bu boobaa julli buñ ne yàllaa ngi koy def mooy yërmande ju muy wàcce ci nit ñi buñ ne nit ngi koy def wala jinne wala malaayika bu dee nit mooy taxawaay ya rukkoo mooy sujjóot ya mooy ñaan ya mooy sàbbaal ya bu dee picc ya la wa salaatu min a tayri wal axwaami a tashbiu waaw bu dee bu yi la garab yi lépp a ngi julli ci yonent bi lépp a ngi màggal borom bi subhaanahu wa taala loolu ay sàbbaal lay doon sabbal yoo xam ne ñun mënuñ koo xam borom bi subhaanahu wa taala nee na xam naa ko waaye yéen xawtu kon du ngeen ko mën a xam kon julli mi ngi noonu baat bi ñëw na ci alxuraan ay yoon yoon danaa ñëw ci aayaat yi wax ci julli waale balay loolu ma ñëw ci lenn ci maani kalimatu salaati fil quraanil karim ndax laffu yi te baatu salaat fil quraan ñëw na ci anam yu bari am na foo xam ne borom baa ngi indi ci maanaa ñaan nga xam ne ñaan lañ ko fay déggee inna salaataka sakanun laxum la wax sa ñaan day da leen di indil ak dal waaye baat bi boo doon tekki yax bi ma ngaa wax sag julli te maanaama mooy ñaan inna salaataka sag ñaan ci ñoom yow yonent yàlla muhammad sakanun lahum ak dal la ñeel leen am na foo xam ne dafay ñëw ci maana istixfaar yaa ayuha am na foo xam ne dafay yërmande wax naa la ko léegi huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatahu am na foo xam ne dafay ñëwee bi maana alxawf maanaam julli julli wa in wa i wala wa ida kunta fihim fa aqamta lahumu salaat am na foo xam ne dafay ñëwee jullee ku faatu wala tusalli ala ahadin minhum maata abada am na foo xam ne dafay ñëwee julli kuy fa laysa alaykum junaaun junaaxun an taqsuru min alsalaati am na foo xam ne dafay ñëwee salaati umamil maadi maadiya te moy jullik xeet ya nga xam ne ñoo jiitu woon wa awsaani bisalaati wassakaati am na foo xam ne dafay ñëwee ci wàllu église ak yahuud ya wa biyaun wa salawaatun am na foo xam ne dafay ñëwee ci julli juróom wa kiimu salaata wa aatu zakata am na foo xam ne dafay ñëwee ci jëmmi lislaam ci boppam fala sadaxa wala salla ay la aslama yooyu yëpp ay baat la yoo xam ne day ñëw ci wàllu julli maanaa yi nga xam ne moom la am te alxuraan tudd yi ma la wax yëpp ay aaya la wala ay baat la yoo xam ne mi ngi ci alxuraanul karim bu dee borom bi subhaanahu wa taala lim jëfandikoo baatu julli wala aaya yi nga xam ne moo ci ñëw bari na lool kenn xamul num toll ndax ci alxuraan da ngay gis ne taxawal julli daa bokk ci melokaanu ñi nga xam ne dañoo gëm seen borom iqaamatu salaati sifatul muminin melokaanu ku gëm yàlla la boo ñëwee ca saara wa gën a gudd ci alxuraan surat numéro 2 surat al baqara borom bi ba muy tàmbali bam ne alif laa miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna salaata dégg nga wa salaata wa mimma rasaxnaahum yunfiquun yàlla nee na ñi ragal mooy ñi nga xam ne dañ ko gëm ci kumpa waaye mooy ñi nga xam ne dañuy taxawal julli kon day delluwaat ci sifatul muminin alladina yuminuuna ñooy ñan ñi nga xam ne wa yuqimuuna salaata dañuy taxawal julli wa mimmaa rasaxnaahum yunfiquun boo wàccaatee tuuti ci jeneen aaya du sori foofu borom baa ngay wax ya bani israila udkuru nicmatallahi alaykum wa awfuu bi ahdi uufi bi ahdikum wa iyaaya farhabuun wa aaminu bimaa anzaltu musaddiqan limaa maakum wala takunuu awwala kaafirin bi wala tastaruu bi aayaati samanan qalila wa iyaaya fattaquun wala talbisu alxaqa bilbaatili wa taktumu alxaqa wa antum taalamuun wa aqimu salaat wa aqimu salaat wa aatu zakat warkau maa arraakiciin waaye wa aqimu salaat yàllaa ngi wax ak banu israil ne leen fàttaliku leen xéewal yi ma leen defal firaw na di leen noggatu ma yónni Muusa mu soowee leen ak li ko jiitu seeni maam di ay yonent lu ne ma defal leen ko fàttaliku leen xéewal yooyu matale leen kóllëre gi ma defalante yéen bàyyi leen ma xel gëm leen li ma wàccee bu leen doon ñi may njëkk a ci kaw suuf bu leen jaaye aaye yi ma leen jox njëggu tuuti rikk waay ragal leen ma bu leen jaxase dëgg akuk neen nëbbu dëgg ji te fekk xam ngeen ko waaye na ngeen taxawal julli ndekete ngëm yàlla da caa bokk bu yàlla di woo ba nga ñëw danaan la demal julli ji loolu daa bokk ci liy wane ne adhéré nga wa aqimu salaat wa id aqadna mithaqa bani israila allaa taabudu illa allaha wa bilwalidayni ixsaana wa dhil qurba walyataama wala walmasakini wa quulu linnaasi xusna waaye wa aqimu salaat yàlla nee na maa fasante kullëre maa def jël engagement ak waa banu Israil ne leen bu leen jaamu ku man na ngeen ma jaamu man dong ma nekk yàlla na ngeen ma wéetal na ngeen rafetal jëme ci seeni wayjur na ngeen rafetal jëme ci seeni mbokk na rafetal jëme ci Eh, jirim yi na ngeen rafetal jëme ci miskin yi na ngeen di wax nit ñi wax ju rafet waaye wa aqimu salaat dee leen julli sama diggante yéen ratax seen digganteeg nit ñi na ratax waaye na ngeen ma bàyyee xel na di julli wa aqimu salaat kon daa bokku ci eh, sifatul mu'min mu'minina as-salaat wala iqaamatu salaati sifatul mu'minin taxawal julli daa bokk ci melokaan yi nga xam ne aji gëm ji da ko war a wadda kacirun min ahlil kitaabi law yarudduunakum min bacdi imaanikum kufaaran xasadan min anfusihim min bacdi ma tabayyana lahum alxaq faafu wasfaxu xatta yaatiya allahu bi amri inna allaha ala kulli cheyin xadir waaye wa aqimu salaata wa aatu wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda inna allaha bima taamaluuna basir allahu akbar borom bi nee na ñu bari ci ñama joxoon téere ngéejoo woon nañ ngeen bàyyi seen diine ji ginnaaw bi ngeen gëmee ndax loolu ak kiñaan la rek ndax dëgg leer na ci ñoom waaye jëllaleel te jéggale ba mbirum yàlla di ñëw waaye mu ne wa aqimu salaat ni ngeen taxawal julli ni ngeen joxe asaka na ngeen xam ne jaamu yàlla gi ngeen def lu ngeen jiital ci seeni bàmmeel da ngeen ko fi fekk yàlla nee na lu ngeen jiital rawaleel ko seen bopp dénk ma ko ci jëf yu baax da ngeen ko fi fekk ndax moom ku xam la ku xàmmee la te ku gis la li nga xam ne moom la jaam di jëf yal nañ yàlla boole nangul loolu len la ci julli maa ngi ci di wane ne julli melokaanu ñi gëm yàlla la bu ñu yàlla mayee ñu dund ba samedi di ñëw yal nañu yàlla may ñu dund ba samedi jooja te weesu ko yal nañu ko yàlla boole defal danañ gën a yaatal tomb boobu nga xam ne ci lañ nekk te mooy waxtaan wi jëm ci wàllu julli ak yi nga xam ne moo ci aju ñoo ngi leen di falaat bu baax te di leen dokkeel di leen jéggulu nag di ñaan borom bi mu boole ñu jéggal di rafetlu lool ni ngeen di toppe jotaay bi bu jeexee ñi yónnee ay message di ko rafetlu ñii feeñal seeni ñaan ñii feeñal seeni yëg-yëg ab soññee la ci ñun